ndax yàlla naatal xarnu bi mbeg maa nge teeru leen basiir doonay e. basiirun wa nazir ku teeru nan lek basur du qif du mat ci xarnu bi nag dégloo leen mën a jariñu dégloo meuna jarignu rawati na ñi tuddu gi mu tuddu tudd serigne bi te ma to ca kon war ma wax moom jalaal te am jamaal te xar kanam baaleer xamaal te bari xam ak xalaal buri kabi ci xarnu taar ba ca Yuusuf al Karim mu fal ko def ko doom jigéen sagoom mi ngeeg basiirum xarnu bi ci ak la daldi raw fóore ya ree karaw te mus ci yëfi ndaw mus waaye dama war a wax fii ma fa mag ñi daa romb naa sama juróom ñett fukki soobu na um tasawuf ku ko rawoon nee la wif moo raw ña xaloo nooma la sakkaañi teewe xarnu bi ilmu diraaya la jagoo mbirum inaaya la ngoo nuuru sagoo denam amul ci xarnu bi duru site mbaamu julee ka jàng ñaan yooyu la baaxoo may la laf na fi sax ba dégg maam ba toll maam ahmadu maam te doon mbooji woon ci ndax yàlla naatal xarnu bi allahu moo di jenn waay moo jàpp def ko ni baay